jërë ngeen jëf mbokk mbokk internet yi ñooy nuyu baax a baax di leen ziar di am mbégte kontaante comme ñu koy defee à chaque fois lépp nga xam ni moo doon actualité ñu benn ndaanaan pour waxtaan ak yéen tey nag ñoo ngi jàkkaarloo ki nga xam ne nii Amazone la moom lañuy wax Diva Saliou ko xam-xam ko ci liggéey ko xam-xam ko ci jom tey nag mu tombeek 8 mars 8 mars nag à chaque fois boo koy wax jàmbaar taatay ndeer yi ñi nga xam ne nii ñoom ñoo leen doon tey ñoom la ñuy seeti alors tey la moo tax tey ñu fekk si kii di dibaa Saliou pour waxtaan ak moom bu baax a baax si li nga xam ne nii mooy 8 mars ak lépp li nga xam ne nii day bokk na si ay activité am salaamaaleykum Diba ñu ngi lay nuyu. Euh, salaam maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay yéen ñëpp am contentement ci li ngeen déplacé euh, ñëw seet si ma kontaan naa ci trop macha allah. da ngaa euh, merci yéen laa ko tuddee. merci mhm. alors bonne fête dañ lay njëkk souhaité xam nañu tey le 8 mars ñu si sargal jigéen ana yan kàddu ngay yëkkati voilà 8 euh, mars bi euh, c'est pour les femmes ñu ciy sargal jigéen ñi yéen ngeen ñëw seet si ma ci euh, dama ciy kontaan parce que jigéen mooy àdduna jigéen mooy yaay jigéen mooy lépp nee naa la bu jigéen bonee rek lépp day bon mais bu jigéen baaxee rek lépp day baax waaw alors Diba Saliou boo ko tuddee xel yëpp si jàmbaar lay dem moom la ñuy wax naan la reine de Saba parce que maanaam liggéey bi nga xam ne nii moo si daan dooleem di jàppale ay doomu aadama alors tey boo doon ñëwaat tuuti kam mooy Diba Saliou voilà Diba Saliou benn ndaw la euh, bu nekk fi euh, di jàppale nit yi pour ñu liggéey euh, man sama lépp ci social laa koy def Euh, ndax euh, tey euh, liggéeykat laa te damay bëgg ñëpp mel ni man walla ñu raw ma gëm seen bopp am fulla am fayda di teel a xëy di guddee wàcc mm-hmm. waaw alors senegal dañ suñ société dañoo tàmm à chaque fois bu ne jigéen ñu yaakaar ne jigéen dafa war a toog si kër gi mm-hmm. di ba saa yu takk ndigam pour dimbali ñi nga xam ne ñoo ko wër waaye tamit bokk si ñi nga xam ne nii day day tax di jaay ay dimbali tamit ay jigéen maanaam ay saag lépp li nga xam ne nii jigéen sëfandikoo boo doon ñëwaat rek si bitig rek voilà man nag euh, loolu dimbali jigéen ñi dama loolu sama objectif la parce que dama bëgg jigéen ñëpp rek euh, kenn dootul laajte euh, jigéen yoo xamante ne ni dañuy gëm seen bopp di teel a xëy di guddee wàcc liggéey bi nag man ci fànn yëpp laay yëngu Euh, showroom yi du bii rek am nañu unité set am nañ aussi géejawaay marché Ndiarème tey nag fii ngeen ma fekk muy Aline Sow waa euh, ñu ngi aussi ci tool yi dañuy bay lépp lu nit ñi di lekk rek lu ci bari dañ koy bay pour rek euh, jëmale suñu réew kanam parce que suñu nekkee ci àll bi ku ne xam na ne li may nekk Sénégal bariwul ci àll bi laa ëpp lu may nekk mais suñu liggéeyee nag ci àll bi ba am as dañ koy ñëw investir ko suñu réew muy suñu réew lañ bëgg suñuy ndaw réew la ñuy bëgg ñu avancé mm-hmm. loolu moo tax lépp lu ñu am rek dinañ ko investir Sénégal woo ndaw yi ñu ànd ceeg ñun liggéey. Mm-hmm. waaw loolu moo ko def Diva Saliou mm-hmm. boobu la. xam nga rek gëm sama bopp rek euh, bëgg liggéey bëgg bañ a ñaan kenn bañ a sonal kenn te euh, man taalibi Serigne saaliw laa. Euh, à chaque fois su ma daan dem ci sama kilifa ga boobu laa gën a nekk xale. Mhm. di dem di ko di ñaan dama su ma ko fekkee ca keesam ga dama naan ko yàlla naa mën ba dimbali ñëpp. Mhm. moo tax duma lekk bàyyi kenn du ma naan bàyyi kenn lépp lu ma am rek fas mhm. yéene ko bokk ak jaamu yàlla yi waaw. loolu wax naan ñaan bu nangoo sonal boroom waaw <laughs> waaw gis nga ñaan bu nangu moo sonal borom. sama kilifa ga dañ ma ko ñaanaloon. Euh, li waral sama tur bi ma teg ci saaliw ji man Serigne saaliw rek laa am moom rek laa doyloo moom rek laa bëgg te fi ma fépp fu ma toll rek moom la mhm. nu ma mel moom la ah lu ma amit moom la mhm. kon nag euh, damay delluwaat rek bokk kook askan wi ñu bokk ko mhm. si loolu lay jëm maanaam dugg si li nga xam ne ni wax naa ko léegi ñaan bu nangoo sonal borom jafe-jafe yi tamit des fois day am mm-hmm. des fois tamit ñu dégg maanaam diva saaliw ay tolof tolof yi nga xam ne nii mm-hmm. moo koy dal alors nan ngay gérer loolu yëpp waa xam nga nag euh, boo siiw du jàmm borom mm-hmm. boo optee siiw rek euh, ñëpp xam la tey doo toog fenn diva saaliw te doo gis ko ko xam wala nga xam ko ko xam waaw loolu nag siiw moom du jàmm borom dangay jànkoonteeg ak lu nekk mais euh, du tee nga wàcc sa ànd dangay xam sa bopp. Mhm. am sa fulla am sa fayda am sa caractère toog liggéey sa liggéey ñu bañ laa dugal ci yenn yi. Mhm. parce que boo xasee siiw rek xaw a am tur tuuti rek ah coono dugg na. Mhm. déjà lu baree bari doo ko mën. fu baree bari doo fa mën a dem. surtout nga nekk nag euh, xale teel dooj rek. xam nga teel a yóbbu sa bopp cour de grands kilifa yàllaa koy def ci nit. du nit moo koy def boppam mais nag euh, dañ ciy sant daal dañ ciy sant mais tolof tolof yi nag du ci ñàkk moom tolof tolof yi du ci ñàkk mais lu ñëw rek dañuy gérer parce que ay bi lañ ay saalixat lañ waaw bu nga ko léegi say biir wax nee nga cour de grands te boo tuddee tour de grands mm-hmm. wax wàllu concurrence mm-hmm. ana Diva Saliou nan lay dundee concurrence bi nga xam ne nii fi mu toll nii moom koy dund biir Sénégal mm-hmm. parce que am na say morom yi nga xam ne ñoo ngi yëngu comme yow ni ngay dëgg la waaw concurrence bi moom xam nga danga leen di bañ a bàyyi xel rek parce que tey boo nekkee ndaw maanaam li ngay def moom la ñuy répété waat kooku doo ko jàppee concurrence da nga koy jàppee fans bu nëbbatu parce que tey bu dee boo tegee benn pas waaw <laughs> dañuy wane nag nit ñi que ni concurrence lañ mais euh, fans lañ parce que boo tegee benn pas mhm. ñu ne fi diva teg naa ko teg boo defee dara ñu ne li divaa def naa ko def kon man ñooñu duma leen jàppee concurrence damay jàppee na samay fans lañ ndax dañ maa bëgg ndax li may def la ñuy def dañuy toppaat sama ginnaaw rek xam nga ki la jiitu ci néeg bu lëndam moo lay wan fi lampe bi féetee mhm. maa leen di wan lampe bi rek baaxee ko yaa leen di wan lampe bi mais des fois ñoom duñ nangu fu lampe bi féetee <laughs> des fois ñu yaakaar lampe bi féetee na féetee donc des fois donc bi dem fi nga xam ne nii mhm. ñoo dégg ay diba saal ay nat yi nga xam ne nii ay millions lay doon mhm. diba nat yi fan la jógee balaa ñu dugg maanaam si biir sax si xuus waaw avant TikTok di gën a kii nii euh, dama doon def ay natt dama ko yàgg bëgg parce que euh, sama yaay comme nekku fii moom mu ngi États-Unis daf daan def daf may yónnee ay bagage su ma yónnee ay bagage même bu ma ko mënta jaay dama yàgg bëgg commerce mm-hmm. léegi dama naan leen dama koy teg maanaam jël benn 10 personnes ku ne joxe 2000 bu matee ñu jox kenn ku ne joxe mille ñu jox kenn noonu laa débuté natt yi mm-hmm. bay natt nag euh, natt bi gën a mag ci réew mi waa xam nga ne maa ko yor loolu laa dégg merci ñu ngi ko commencé nag ci cent mill ba fi mu ne nii ñu ngi ci 100 millions. 300000 cent ko commencé ba fi mu ne ñu ngi ci 100 ah, millions man dama doon dégg maanaam ay ay ay 10 millions nag 10 dégg naa ko. Mm. ay nat 20 millions. Mm. mais natt cent millions si biir réew mi ma am na fi. waaw maa ko yor nag te maa ngi koy nat te di ko teggi te yàlla dogal na nag mosuma ci am ak nit problème. sans problème non doo dégg no doo dugg fenn ba gis ñu ne Diva Saliou yoreel na ma 100 francs wala Diva Saliou war na ma teggil teggilu ma wala Diva Saliou dafa publier ba ñëpp wane ne ñoo war nañoo jot xaalis bi mu dugalaat ko yooyu nekkuma ci. Diva Saliou nan lay gérer loolu yëpp si njug bi kenn du si wax kenn du am problème ak bu xamee maanaam jigéen. ak coow ñoo ànd. Diba Saw di gérer ay nattu cent millions de francs fa loolu première dame sax mënu ko gérer. waa gis nga loolu la nag xam nga coow moom faaw mu bari parce que jigéen moo mel noonu mais tey jii euh, booy coow da ngay coowoo ak ñi nga yamal niveau. gis nga dafa am ñoo xam ne jaruñoo waxal jaruñoo tontu. parce que maanaam yéen a bokk école mais bokk leen classe récréation moo leen boole kon récréation bu leen boole ah. nañ récréation 15 minutes ku ne delluwaat ku ne xam nga këla mën du dëgg danga ko dul nangu coow yóbbul fenn kenn fenn parce que ñun ay kilifa dañuy bëgg tout récemment rek ce xale yi fi ñëw 10 ans 8 ans mhm. xam nga indi fi ay cadeau indi fi samay photo di ñu suivre ay xale yu tuuti ñoo xam ne suñuy moroomu doom lañ kon du ñu jël suñu sutura di ko xaawi ci internet bi di coow di xuloo mhm. di manqueel suñu bopp classe mhm. nit ki boo doonee diva diva du loo xam ne da ngay ne diva laa rek teg ko ci làmmiñ da ngay doon une grande diva une grande diva nag mooy une grande dame xale bu bëgg boppam mm. Mm, xale buy teel xëy di guddee wàcc ci kooku diva la xale boo xamante ne nii mbojo mbojo yi duñ ko tardeel fenn mm. lu waaye wax baax na en tout cas nay prouver ci réew mi rek loolu mooy diva mais am na tamit sa yeneen concurrente yi nga xam ne ñoo ngi prouvé koroog euh, kii di Fanta Mbuub woo na ma ibi benn bitig bi nga xamee ni macha allah wax na fa tamit ay wax yu rëy jàpp na ni képp kuy natt si réew mi moo fi teg tànk ñeneen ñeneen xale yëpp la ñuy xaar ah loolu am na xam nga man nag li may nekk Sénégal bariwul yu bari duma ko yëg man ci tool yi rek laay nekk. man maa ngi ci bàyyi mi rek xam nga man li ma ne ci tool yee bari. Mhm. parce que damaa euh, engagé liggéeyu góor parce que 15 hectares ci benn jigéen benn ndaw mu yore ko yu bari duma ko yëg man damay ne ci tool yi rek. tool rek di natt di teggi en tout cas daal Diva Saliou doo dégg ñu ne yore na xaalisu nit wala convoqué nañ ko te xale yi nag ñu leen di convoqué. Mm. am na bi. am na xale yoo xam ne moo yàq seen voyage ci weer bi. waaw kay. Mm. ñoo ngi leen di convoqué normal. ñii dem di wuyu ji. dañuy wuyu ji. am ñuy des wala am ñuy dañuy wuyu ji de ku ci wuyu ji wul rek ñu jël si la waaye Diva Saliou moom yàlla dogal na mosuñu koo convoqué mosut a wuyu ji. te Diva Saliou moo yore euh, natt yu gën a rëy Sénégal. kenn mosu ko woo. am mosu am coow. déedéet kenn mosu xuloo. non non ñëppay ñëw di tegg seen natt normalement. normal loolu yàlla dogal na ko ku ne xam nga ka la mën gis nga ku wéet xam nga këla wax jee fi nekk rek ak cooli waaye ku ne xam nga këla mën maa leen mën yaa leen mën xale doo seen morom du ma seen morom maa leen di jàngal yoon wi maa leen di wan yoon bi maa leen di wan nañuy wutee kon munuñoo yam ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wan fi lampe bi nekk rek lool la mais tamit du ñàkk tamit parce que tamit temps yëpp ñoo ngi dégg benn rumeur boo xam ne am na maanaam sa bitik mm-hmm. si wàllu concurrence sax la am Mhm. peut-être ñu jël ay liggéey yu bon yi nga xam ne nii des fois ñu sànni ko sa bitig yow da ngay yeew rek gis ay bopp nag kenn xamul ay bopp gileem kenn xamul ay bootu mbaam xuux di ba <laughs> affaire bi àgg na foofu ak nag nga dundee loolu. waa loolu nag euh, man lu ci bari samay xale ñooy tijji parce que man du showroom bii rek laa yor. damay loolu am na. si am na ñëw nañ fi fekk fi ay bopp. ñëwaat fi fekk fi ay nen yu ñu kii ay cabinet sax dañu koy sottil cabinet billaay nit dañu koy sottil mais daal ñun buñ ko gisee xam nga nag avant tout dañu gëm yàlla te man nag euh, sénégalaise laa comme ñëpp mais je ne suis pas trop mystique waaw suñu gisee loolu it xale yi woo ma wax ma ko damay xam ne kooku dafa tardé rek ndax ki tardé mooy am jotu moroomam gis nga man mi nga xam ne aw ma jot maa ngi ci tool yi pour ma direct sax problème la te heure bu ñu xëyee ñu ngi soqeeku te soqeeku ñu benn soqeeku ñu ñaar ñu ngi soqeeku ay millions aw ma jotu kenn aw ma jotu tendance kenn aw ma jotu wax kenn lu bon parce que sama niveau moo dépassé foofu. mais des fois tamit sa xel dina ñaaw parce que xel xel moom ak borom. Mhm. des fois sa xel ñaaw nga ne est-ce que du moo ko def est-ce que du kii moo ko def est-ce que du kii moo ko def parce que tamit du ñàkk say concurrente ñoom ñoo ko def mel damay xalaat ne ku perte la rek ku manqué xam nga ki am jotu liggéey sa moromu jéeg sa nawle ah nga am jotu dem naan dama koy xaati mag dama koy kii loolu problème de temps dañoo am temps rek buñ biisi woon ni ma biisee duñu am jot boobu. kon bisu ñooñu. bisu wuñ kay. pourtant gars yi def ay direct gis nañu fi Mame Ndiaye Savon saa yeewa def direct Mamy Cobra saa yeewa def euh, maanaam bëri nañ su ma limee damay jum ñoom tamit nee nañu ah. jaay dañuy jaay ay journée 1 million dégg naa ko fekk yooyu. waaw xam nga ku nekk ak ngay jaay. man damay jaay man journée damay jaay plus de gis nga sama promotion bi ma def chaque jour 10 chambres à fekk ngeen ko fekk ngeen oto yi di chargé chaque jour 10 chambres à coucher ah te dañuy woote waat ma ne leen 10 laay livré foofu laay yem xam nga mhm. waaw ku nekk rek da ngay xëy jaay sa wërsëg gars yi di ko xëccoo gis ngeen li fi xew ñoo ngi jaay ñu ngi soqeeku bu baax mhm. waaw ñu ngi soqeeku yàlla ma ba mu duggee si bitig moom mhm. damaa tiit damaa joomi dama daan bitig yi mu a dugg yëpp ah duma wax mos maa gis bitig bi demee di doy na waar doy na waar te du benn du ñaar nag showroom yi du benn du ñaar comme ni ma la ko waxee ñu ngi inteset tali Demba Dia ñu ngi Guédiawaye marché Ndiarème showroom yi du benn di ñaar ñu ngi soqeeku xam nga wax ju bari ja ak defante gu metti gi xam nga lu ko indi ñàkk jaay day naqaril xol gis nga boo xëyee sa boutique en plus de vingt mille message téléphone bi message téléphone bi message nga war a liir say message war a livrer say commande wala charger say meuble ah boo paree war a dugg ci natt yi doo am sax jotu TikTok bi ba naan da ngay tendance kenn man boog man Diva aw ma jot boobu Mm-hmm. bu fekkee da nga war a jaay jot la rek. Mm-hmm. da nga jot ay chambre couché. waaw ay chambre à couché du moins. Ah. Euh, a journée bi doo am jot bay teg sa live. naan yaa ngi bay naan kii def na ma lii kii lii kii lii. live bu bari beeg wax ju bari jëpp temps la. temps la doomu de jot la de. jot la de maam de la de mais nag man aw ma jotu loolu. man mm-hmm. je travaille xam nga liggéey sama liggéey su ma ñëwee ci showroom bi dem ca bee su ma paree ca bee dem ca tool ya ne ci sama mbay waaw am ak ñëpp jàmm nag am ak ñëpp jàmm mhm. man chéri aw kenn problème hmm. aw kenn problème hmm. mais xam nga lañ nekk loolu moom fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi hmm. man lu ma mënti gisit duma ci xalaat kenn xam nga non mais man duma xalaat kenn damay xalaat ne rek ku tardé moo def loolu parce que ku am ku xëy yaa ngi liggéey ah, yaa ngi teel a xëy di guddee wàcc yaa ngi ci say natt yaa ngi ci sa ay showroom yaa ngi ci sa ay tool lim li sa bi li ci nekk attanuma ko. dëgg la dëgg la. Euh, uh-huh. d'après les hmm. hmm. euh, hmm. <laughs> waa léegi dem gi moom maa ngi dem xam nga boo yàggee voyage man sama première voyage autorisation parentale la voyagé. te maa ngi ci euh, maanaam nit ñi. tout récemment rek même pas di jours pourtant génn naa ñëwaat mais comme nit ñi bu ñu génnee fësal def lii man su ma génnee liggéey a yóbbu damay génn jëndi samay bagage chargé samay conteneur ñibbi si mais comme génn wanewu maa ngi fii maa ngi dem maa ngi ñëw loolu laa dul def waaw te bu may tukki xale yi tukki wuñ nag da ngeen di xool archive xam nga yéen bu leen xool 2021 2022 li ci xew dangeen di wàcc seen ay caméra xool ba 2015 2014 2012 xool la xewoon ci ngeen di xamee ku nekk mais xam nga 2022 2023 moom xale dañoo jël voyage man nag duma koy voyager naan maa ngi dem maa ngi ñëw ah en tout cas su may dem ay conteneur moom may yóbbu damay dem charger samay conteneur ñëwaat damay voyage ba ñëw ta nit du ko yëg. waaw xam nga ñi siiw man yàlla dafa dogal euh, yaroo ma fi man seen idée ak sama idée bokkul xam nga man mosuma gis may xuloo wala di wax wala di génnante audio wala nekk ci yooyu man newuma ci kon nag ñi ci ne damay ñaan rek yàlla génne leen ci ñu suturaalante te te ay jigéen lañ man nag moom aw maa kenn xaar ma yàlla ñëpp samay xarit lañ ñëpp samay nit lañ. nan problème. bi nag xam nga man euh, maa ngi ñëw avant-hier Euh, ci tool ya la ma fekkoon aw ma connexion maa ngi woon ci tool yi ah bi ma ñëwee aussi li ma ci jot a dégg dama ne yàlla leen yàlla may jàmm mm-hmm. ñoom ñëpp parce que réewu jàmm la ah ñoom ñëpp ay ndaw réew mi lañ ñoom ñëpp ay jigéen lañ surtout ci mars bii mm-hmm. na ñëpp am jàmm rek te bañ a weerante bañ a xaawente sutura parce que yàlla ci boppam moo njëkk a suturaal nit mm-hmm. kon na ku ne suturaal moroomam rek ñu nekk si jàmm parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar man de duma xuloo du ma xeex mais du ma digal nit it muy xuloo wala muy defante parce que amul chance déjà dinañ di nga dégg loo bëggut a dégg dinañ la wax luñ te wala war ta wax dinañ la yab ah bu ma sañoon ñoom ñëpp ñu nekk ci jàmm te maa ngi koy ñaan ci barki Serigne sa mais hmm. a waaw bu leen neexee ngeen xool commentaire yëpp Diva saaliw yoreel na ma xam man sama bos laa xam mais bosu ñeneen du ma ko xam. Mm-hmm. mais di ngeen leer commentaire ba sonn. du ngeen gis Diva saaliw yoreel na ma wala Diva Saliou war na maa teggil wala groupe bu Diva Saliou laa nekk am problème bu la neexee mën na la jox téléphone groupe bi ñu ngi ak 65 groupe ah te fu nekk macha allah fees na ñu ngi natt ñu ngi teggi parce que ñun du xaalisu natt la yaakaar mm-hmm. xëy na natt bi lu ñu bëgg la rek. mais du xaalisu natt bi lañ yaakaar te du xaalisu natt lañuy ñuy liggéeyee kon nag suñ natt mënta am problème mënuñoo porter plainte mënuñoo woo fenn te nattkat yi chaque jour ñoo ngi mhm. wax hectares yi. waa hectares nag euh, dañuy récolte soble. Hmm. dañuy récolter pomme de terre damay def oignon. Euh, damay def poivron damay def tomate euh, damay def citron ah damay def màng goyave man lépp rek laa boole lépp rek laa boole su ma demee ah ay ndaw a nga fa parce que hectare bu nekk dama jël quinze personnes teg ci te ñoom ñëpp maa leen di fay par weer léegi nag loolu moom bu naree nekk ci sa bopp nga leen di lijjanti heure ji jot nga dem jiw ji xam nga solaire yàqu nga dem defar ji xam nga nekk ci sa yooyu loolu góor moo koy def fii bariwul góor bu gérer loolu yàlla def ma gérer ko nag euh, di ci sant yàlla loolu moo gën a tax ma manqué temps. effectivement mhm. euh, mhm. mhm. waaw man nag euh, natt yi comme nit ñi man lañ xam man lañu wóolu man publicité laa ci am. ne natt bii maa ngi koy def natt bii maa ngi koy def su ma ci paree ba tijji groupe bi dañ ma koy yoral dañ ma koy yoral ku ci mel ni Binta sama petite sœur la moom moo yor natt 100 million natt 20 millions natt 40 millions te bu ci nekk du doon benn groupe. am na natt 10 millions dem Ndiaye moo ko yor Laalia aussi sama doom la yor na presque 20 groupes ah ba ci papisme ci sama ginnaaw yor na ay groupe fii képp ku fi nekk rek dañuy la tijjil ay groupe man xama lan laa kii jouru teggi ñu ne ma tay la teggi ma dem décompté xaalis bi ñoo compteel boroom jox ko ko mais mënuma ko gérer ak tool yi waaw euh, ñu ngi nag euh, unité set euh, Tali Demba Dia ñu ngi fa showroom Diva Saliou Guédiawaye marché Ndiarème ñu ngi fa showroom mu Saliou Aline Sow aussi ñu ngi fi ñu ngi am nag lu ñu leen di waajal juste après koor gi rek waaw après koor gi daal mm-hmm. waaw mais dafa am tamit des fois tamit ay yaa ngi wax say boutique mm-hmm. mais des damay poser la question est-ce que Diva moom moom boutique yi mm-hmm. parce que dégg ñaar beneen Diba Sadio moomu boutique bi moo ko moom wala keneen ak moom nu mu demee noonu est-ce que Diba Sadio réellement moomu boutique yi. waaw xam nga keneen bu ko moomee kon mu ñàkk fayda parce que Diba Sadio di tijji boutique am def fa ay photom def fa turam ci yëfu keneen xam nga maanaam ba ngay liggéey xale yi liggéeyuñu munu leen a yem wax jëy bari rek ak coow li mais man ba xale di tëdd di nelaw boobu maa ngi jóg te xale yëpp dañoo jaar ci samay tànk mm-hmm. xale dama leen di yóbbu ñuy voyager xale yi dama leen di yóbbu ñuy voyager dama leen di defaral lépp mais tey jii koo ci def loolu mu tourné waat di la geeraat mm-hmm. da ngay tu t'en fous parce que koo xamal mm-hmm. jaaral ko ci yoon mm-hmm. ah bu paree tourné di la geer da xam ne rek yow yaa ko xale yooyu nga yóbbu ñuy voyager siiw nañ bay toj ne si ñu ci bëri mais jarul wax ñoom xam nañ ko ku dugg sama compte yi di nga ko gis ah. non du ma tudd tur. parce que parce fois euh, day dégg. Mhm. am ñoo xam ne day naan ñoom ñoo moom boutique bi Diva Diva Saliou moomu boutique bi. Mhm. ñoo waa nañ jël buñ ko moomee nañ jël. Ah, non Sénégal yoo xam maanaam boutique bi waa nañ jël nañ jël buñ ko moomee nañ jël rek. mais boo nee nañ jël. Mhm, Sénégal duñ yaakaar ni ñeneen ñuy wax dëgg la ñoom ñoo moom xam nga yaakaaru sénégalais yi moom boo ci toppee ak waxu sénégalais yi da ngay mujjee tardé. xam nga picc bu lakk ci taat day bëgg moroom ku ne xam nga ka mën ku ne xam nga la nga am du dëgg hmm? ay maamoom boutique bi ak maamoom boutique bi nañ jël nañu wër di wax nañu wër di wax xam nga kuy wër di wax ak kuy liggéey weer bu dee mënuñoo yam résultat man daal li ma nit ñi xamee ci laa nekk patt organiser silence liggéey sama liggéey teel a xëy guddee wàcc kenn du ma dégg ci cas kenn du ma dégg ci détail kenn duma ci dégg ci waxu maacib yi waxi bàyyi da puuta yi man neewu ma ci mhm. xam ngeen yéen ku am lu ko metti ak ku amul lu ko metti bu ngeen ko xoolee war ngeen ak koo xam xam ne sama kanam gii ma belli sama ñuulaay bi set sama ree ji neex awma ah, aw benn stress waaye yéen jéeg bi ngeen fekk nii mu toog xool leen rek ci kaw ba ci suuf nuru na leen jéeg bu am stress wala bu am problème wala bu am ko muy bëgg a waxal waa xaatim yi nag moom ñoom ñoo ngi ci rek bàyyi leen rek ñuy xaatim xam nga bu ñu xaatimee ba sonn te gisuñu bàyyi leen ñuy xaatim rek dañoo am jot est que parce que naa ngi bon bon bu ma bu tukki yàggul. wax ko sànq mais da nga tool laa demoon. est-ce que hmm? moo ngi demaat États-Unis di koy doon defee à man sama yaay nekk États-Unis man sama man. unique unique laa man fii. Hmm. aw ma fi mag aw ma fi rakk aw ma fi dara. Touba bi di xeer xam ngeen ko. Hmm. Touba bi di xeer xam ngeen ko. sama yaay moo ko moom. man su ma neexoon dem foofu ci salon ba di létt mais man maa bëgg voyage di dem di ñëw. toog liggéey fii parce que imagine ma yor samay quinze hectares yor ay nattu jàmbur plus de 65 groupes ah ma bàyyi fi lépp naan damay tukki damay tukki li may wuti ci àll ba dama koo am fii man su ma tukkee vacances sama yóbbu su may chargé ji sama conteneur dinaa dem chargé ji ba ñëw nit du ko yëg yéen da ngeen di xëy rek gis conteneur wàcc na xam nga tamit euh, xale yi nga xam ne buñ taxawee buntu aéroport sax filmer passeport ba filmer valise ba dama dépassé loolu dama de non wax maa kenn nag chéri wax kenn waxuma kenn mais dama ne la man dama dépassé loolu xale yi si seen bopp xam nañ ku leen jiitu ci réew yi ku ne xam nga que la man mais dama dépassé loolu damay voyage nag tout le temps maa ngi dem di ñëw mais tey mën naa dem ba ñëw sax te yéen ñi du ngeen ko yëg yéen da ngeen di xëy rek di gis conteneur di daanu conteneur yi daan te xanaa di nga dem chargé conteneur ñëw mais ñoo bokkul niveau xam nga man su ma tukkee mën naa tukki ba ñëw yéen du ngeen ko yëg mais ku nekk tamit am nga ci droit ku tukki tamit waneel ne tukki nga jaay say bagage loolu dara nekku ci waa xam nga xale yi moom mooy loolu rek dafa am ci yu ñuy nekk mais man lijjantiwuma leen parce que xam nga lan la booy wax maanaam suñuy wax ak diva diva di ko dégg day neex mais man damaa gumba tax lu boole ci xel mi neexul kon dégluwuma dégguma maa ngi ci sama liggéey xam nga maa ngi ci sama ruq patt daal laa maye patt ak silence ak organisé. mais mais ñi nga mhm. mhm. waaw man nag xam nga ba ma toogee ci réew mi yàggul ba ma war a mën fee am xarit parce que baatu xarit dafa doon loo xam nga li xew ci internet bépp diw sama xarit la te du sa xarit diw sama xarit la te fekk sa àndandoo la. Euh, moo ko waral man nag am naa ci ñoo xam ne sekk naa ak ñoom jàmm xam nga ñoo bokk lu ñuy def ku ci mel ni euh, Ndeya Bate sama rek la dafay wax ak man xam nga euh, ki nga xam ne nag mooy sama mag gisuma fi yaay moom laa fi gis instant bi muy maam Basine Thiam ba ci lii ma sol moo ma ko jox ah tout récemment bi may jënd kër moom laa yëkkati 75 millions jox ko mu dem jëndi ne ma maa fii sa yaay maa fii sa papa maa fii sa mag gisoo mag gisoo kenn comme say mbokk yëpp nga Amérique man maa la fi nekkal bi may inauguré gis ngeen ni mu fi sonne kooku daal laa jàpp comme sama saax mais xarit man aw ma xarit yeah aw ma xarit fee eh. muy maam Bassine waaw waaw maam Bassine wax naa ko maam Bassine Thiam lii ma sol sax moom mu ko jox waaw alors mbégte ak kontaan nañu amoon euh, jàkkaar ak yow waxtaan ak yow si 8 mars bi mu dee mu nekkoon li nga xam ne nii Sénégal yi bëri ñoo ko doon xaar parce que ñu bëri la naan Diva Saliou Diva Saliou dañ koy ndam à chaque fois muy wax parce que du ko gis tout le temps si réseaux sociaux yi donc waaw. dama voilà euh, boo déggee ñu ne Diva Saliou mhm. du sama tur man maa bëgg sëriñ saaliw tax ma tuddee sama bopp Diva saaliw ba ñëpp di ma woowee lool ci loolu lañ ma xamee mhm. euh, Serigne Saliou nag moom moo ma defar lépp lu ma mel moom la waaw ndaxte ba ma gënee doon tuut tànk ba ma gënee doon tuut tànk mosuma toog ne ko ñe man su ma ko gisee rek damay tuur ay xewal mhm. sëñ bi daf ma daan ñaanal euh, laal na sama bopp bi xam nga daan na ma ñaan ma gën a nekk xale ma gën a nekk xale ah ma bëgg Serigne Saliou nag sama lépp Serigne Saliou la waaw euh, social yi it dama daan ñaan bés bu ma toogaan ca keesam ga mhm. dama daan su ma ñëwaan day day reetaan parce que du ma xam lu may wax boobu maa nekk xale bu tuuti mhm. xam nga su ko defee ñu ne ko nee na teg kol ci boppam bi ma teg sama kol ñëw xam nga du ma xam sax lu ma bëgg a ñaan du ma xam su ko defee day reetaan rek xam nga ñu daan ne ma jógal mal leen ñaanalu ma su ma ñaanalul du ma jóg ñu ne ma jógal dem xam nga waaw dama ko bëggoon daal sama maam la woon dama ko bëggoon macha allah ah euh, social yi nag euh, man dama bëgg joxe man lu ma am bokk naa ko nit ñi loolu moom ma motivé ci social yi du kenn ma naan kaay def lii kaay def lii xam nga euh, dinaa li ma am ak stuut muy sama xaalis bopp dinaa ko jël di ko bokk ak jaamu yàlla yi di jàppale nit di leen tijjee ay place di jàppale nit di leen jox ay bagage naan leen jaay leen ngeen ñëw versé ma te duma ko wane duma ko doxee tey place yu bari fii taxaw Sénégal place di Saliou la maanaam place yooyu ay nit laa jël ay bagages forcé leen ne leen jël leen ngeen jaay ngeen di ma verser mais loolu yëpp damay bëgg rek bugguma jigéen buy def lu bon parce que jigéen ñi kenn bonul ku def leneen it ñàkk pexe la bëgguma jigéen buy def lu bon bëgguma jigéen boo xam ne day jël alali jàmbur ba tax ne dama lay pousser nga liggéey mel ni man wala nga raw ma. bu waaw verre bi nag verre bi moom verre bi maam baasin la rek maam baasin sama mag ñi waaw bi moom maam baasin la rek ah <laughs> <laughs> yooyu amu ci de yooyu amu ci de amu ci de. Ah, kon amu ci kon alors jërëjëf alors jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax boo ko ak yow maanaam waxtaan ak yow te ji jour mm, euh, mars jour mois 8 mars. waaw muy sama rakk jee Ulita Savon. Mm. dafa mel ni moom laay seen ne moom tout récemment ñëw na fi ndeysaan jënd fi meuble bu rafet. Ulita jënd fi meuble bu rafet tey nag dafa ànd ak kilifaam. Mm-hmm. ñëw jëndaatal kilifaam. parce que man. comme ni ma wax rek ñëpp samay xarit lañ mm-hmm. mais xale yi ndaw yi dañ ma jël def ma référence diva dañuy woo di waxtaan ak man comme yow laa bëgg a mel mm-hmm. diva looy jaay ma jënd xam nga loolu dafa neex ah ñëpp samay xarit lañ dafa mel ni nag moom laa waa xale yi nag euh, buñ ma roy roy ku baax roy kuy teel a xëy guddee wàcc ci roy roy ku néewi wax koo xam ne heure bu génnee rek farata lay wax farata lay wax mm-hmm. d'accord jërëjëf merci beaucoup ces internautes yéen jaajëfe bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen incha allah jaa ngeen jëf